ngeen jëfi bu yàlla du ngeen jaaxle yeneen ba baawoote ngeen gàndoo bu leen naa ko amul maas yooloo yaay borom diine xalal nga noo yoon leeral nga ngërëm lay la la sunu bur la nuy way di tagga yoon nen alayhi salaam sunu bur la nu way di tagga yoon nen alayhi salaam bay laa ya woote lislaam ngam leen ka man wóolu naa Mused, Hamdan Malvalewa. Lolo yay fadar waalo waalo gëm te kontaano looloo yaay borom diine alal nga nooyoon leeral nga gërëm laay laay ñoñam ya war ko di sabbaal bañ yanaan deetawaal ñoñam ya war ko di sabbaal bañ yanaan deetawaal wax leen ci waa ji balaa siw sànku nan dem ca buur bi gindanoo jeex am yaa woon madijo ay garamu dafa ray tëreer metti madijo mani ku daan siyaar nabi yaaram baa nga biir jàmmalaay ñu daa bëgg sidi ilaawa الفوز من لقيله يعرف الوجه يا لم من بديوان يا ملمان يولو يا برم بيله لا لا لا لا لا لا ber tut kon kiramam ya feen babay deme taaxi ber tut kon kiramam ya feen ñu muy nawet jib na noor boobee ba tey kenn du la dangay moomo Allah yamul maas looloo yaay borom diine alal la nooloon may la leen waaw walaay bu leen weran te taal yoneen naka naka taaloo ku ci xamul te di xam-xam lu bañ a laaj yelloon te ngay ngay reero lëndëm nga sànkala waaw waaw dëgg la naafeq yaag ña gëmoon bu fekke woon woote bang naafeq yaag ña gëmoon borom yu rëy yaa ca biir yob xam ba yaag ya koy muur tembal nga leen ba luy jaamu yàlla kenn dootu yow gënen bi ay mbër mi xaloon yoonu leen laa nafeq yaa ña gëmoon bu fekke woon woote baax nafeq yaa ña gëmoon ngir de bànneex topp fa duniyaa ba de ku dem ñu ngay rek ngir la yooba daa ja gëmoon fekke woon woote bang naa fekk yàgg dellooti bañ ngir gabal ne topp dunya ba de ku dem nu ngay rëccu ngir la yaaba ba saamoo looloo yaay borom diine alal nga nooyoon leera lu dul jëfe ko digal ko saw gaay lu dul jëfe ko digal ko saw gaay nekkul moo jaagu fi wareeyo subaana xam-xam ba lay womar jamee naara njooloo yaay borom diine alal nga doon leeral nga ngërëm baay la yàlla nga war a janga yaa woote jubal diine yaa woote jubal diine doo lay kenn di laayee yëmbal nga joo seydi muy woo mante beewaano njooloo yaay borom diine bay lay yawal nga waaca ngaay yaa woote jubal diine yaa woote jubal diine bay waxtu doo doon doo ngañ na kenn la taxaw yonen bi ay mbër mi xaloon yoonu lislaamu yaayamul maas jooloo yaay borom diine xalal nga noo yoon leeral nga ngirum diine bay lay xalal nga noo yoon leeral nga Ablaye jaajëf ndeysaan lii dana doy wallaay wallaay lii dana doy lii dana doy xam naa li ñu bëggoon yëpp xaju fii. wallaay wallaay. waaye da nga ciy dégg rek ne way wii la maam Seydi waxoon ne Libaas Ñang yow boo yemoon ci lii rek doy na ñu layal ko bàyyi laay mooy bu ne bàyyi laay amul maas rek te la maam Seydi daanoo nag ne kenn dootul wax lu ëpp li nga wax. dëgg la ah? mu ne kenn dootul wax lu ëpp li nga wax xam ngeen kon dañ ciy dégg rek ne dafa am lu ñu tudde brut brut nag boo ko boo ko déggee mën na nekk produit boo xam ni li mu mën a jur ci lu bari kenn xamul nu mu toll tey day mel ni pétrole bruit bi mën nga ci génn lii génn ci lii génn ci lii génn ci lii kon nag wayu libaas ñang noonu rek la tëddee bruit la ci ñun boo hmm. xam ni waykat yépp mën nañ ci tànk way ci way ci way ci waaye yëpp day dellu si waat ci libaas ñang bu fekkee ni da ngay tagg bàyyi la alayhi loo ko mën a tagg doo mën a weesu baax baax na ndeysaan waaye nga dégg ci moom ni lay lay amul maas kon bàyyi la amul maas ne kenn mënul wax lu ko weesu. kon mbokk yi tëdd yi. alhamdulilah rabbil alamin jërëjëf sunu teemu tey moo doon. Ah, dañu waxoon ne dañuy wax jullit yéen ñu gëm bay lay loolu li wax ñoom moo ko wax. dëggal Seydi kii ngeen hmm. ku ci weesuwul buntaam bi booy fëgg muy hmm. ubbi waaye jàpp naa ni waxtu wu mayinu ko kon nag damay ñaanaat Seydina Idrissa ñu ñaan yàlla fekkewaat ajjuma bi di ñëw boobaa nag ba tey bu ñu yegg see dañu dugg nag ci way wi waaye ba tey ba tey Baye Abdoulaye Fall alaaji Ngala alaaji Mamala Saan alaaji Seyna Niang ba tey lañu koy développé lañu koy ubbee koy ubbee bàyyi leen ci xel ndax tawxiit lay doon tawxiit boobu nag Idrissa moo nuy faram fàcceel euh, euh, way wow nga xam ni sama baay Mamadou Saxir mu baax mi wax na ko ci aaxiru zamaan waaye Buntamba Buntamba la ñuy tàmbalee Seydina Idrissa tojal na ko Buntamba mooy mooy lan euh, euh, borom jaam yi am na ay melo yu ku jóg tey jaamu war na nga xam leen war na nga xam leen gis ngeen ñaar la boole <laughs> ah mm-hmm. borom jaam yi am na ay melo yëg ci jaam mu war na nga xam leen borom leen ko xam yonentam ba léegi nag tawhid booba yàlla am te moo jiit kee ba ku am am la mooy bii des ku dul moom ne dinay jeex xaatem ba yàlla ko juyoo la ak mbindee léppam <laughs> ku doylu ci boppam ne maa ngi dem de maa ngi dem de ca peem baa <laughs> am kantan ak na melaay am bépp xew-xew mooy xalaat mi neefa mooy ngay xam ta xam-xam baa ngay nit a mel samba am kantan ak na mel xam bépp xew-xew mooy ku fi des ku dul moom ne nay demee Samba kon loolu ci taxti ba nga xam ni sunu baay bu sell boobu def na ko lool jaam yàlla yi xam ngeen ko Covid bee tax yi fi mel ni waaye nii rek lay demee Seydina Idrissa incha allah loolu lay ubbee incha allah ajjuma ndeysaan nag bu ko tasee ba yeggal nag léegi nag ñu dugg nag ci wayu libaas ñang bi jullit yéen ñi gëm bay laay dëggal Seydi kii jërëjëf ku ci weesul buntaam bi booy fëgg muy ubbi jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi jërëjëf Baye de defee nag ñu déglu nag Seyna Idrissa mu tëj waxtaanam ñu dal di julli jaajëf li ñu koy tëjee sànq dafa am lu bi wax ci wàllu way donc euh, développé mhm. euh, ci façon way yi nit ñi di way